politique politicienne te li gën a garaaw ci njiit mooy njiit boo xam ne lu mu wax tey bu subaa mu ne waxuma woon loolu lële laa wax di fooye askanam suba ak ngoon guddi ak bëccëg أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم موكي نيوتي nañ dellusiwaat di leen نيو di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa delsiwaat ci seen émission bi di xam sa diine ci seen chaîne bu mag bi di TMP Events lépp tamit ñu koy delloowaat rek ci dundug doomu aadama ak lan la ci alquran wax ak lan mooy taxawaayu doomu aadama ci kaw suuf ak li tax yàlla wàccee doomu aadama ñu ñëwoon fii ci émission bi passé waxtaanoon ci ndaw ñi di leen wax ci jamono bi fi mu tollu ci lenn ci ay rëcc-rëcc yoo xamante ne ni muy am ci sunu biir ba egg ci lenn ci ñun mënatu mënatuñoo dund ci seeni dëkkuwaay wala mënatuñoo dund ci seen réew ba jaral leen ñuy jël ay gaal di dem ñu indi woon nag ay point de yoo xam ne dañ ko delloo ci alquran ak sunna waxoon leen ne leen boo demee ci suratul luqmaan yàlla dafa wax ndaw ñi ne leen seen wërsëg bu leen ko forcer seen wërsëg bu mu leen jaral seen bakkan ndax wërsëg mu ngi ci loxo sunu borom bi subhaanahu wa taala yàlla waxoon luqmaan ne ko waxal sa doom ne ko wërsëg daal fu mu mën a nekk moo xam ci montagne la moo xam ci kaw suuf la moo xam asamaan la yaati bi allah yàlla dina ko ko indil waaye ñun Sénégal nag nañu xool ba xam ndax dafa am lu ñu yàlla xañ ba tax wërsëg woowu nga xam ne dafa waroon tasaaroo ci ndaw ñi ba ndaw ñi war a am dalu xol ba mën a am dalu xel ba mën a toog fi ñu dëkk ndax wërsëg woowu fi mu jaar fi mu war a jaar yépp ndax doomu aadama yi ko yàlla teg ci seen loxo ndax ñoom niñ ko war a séddalee séddalee nañ ko noonu waaye buñ delloo ci alquran dañuy yëg ne ndekete yàlla moom xañuñu dara lépp lu warloo sunu borom mu war ko tek ci loxo jaam bi yàlla jox nañu ko ba mat seuk sëkk moo tax ci sourate ibrahim yàlla fay wax ne wa in tahudu ni'matallahi la tuhsuha waaye innal insana la zallumun kafaar yàlla neena bu ngeen bëggoon lim lima len waccel ci kaw suuf muy ay xewal ngeen war ko seddel jam ñi yéen ñi nga xam yéen la ko tek ci seen loxo bu ngeen ko doon lim ci ay xewal du ngeen ko mëna jéxal muk waye naka doomu adam inal insana naka nit la zallum ku mën a tooñ la kafaar ku mën a weddi xéewalu yàlla yi la may wax ne Sénégal lan la ñu yàlla xañ ba suñuy ndaw di daw di génn réew mi ndax yàlla daf ñoo xañ ndox ndax yàlla daf ñu xañ suuf ndax yàlla daf ñoo xañ ressources yi nga xamante ne nii mooy jóge ci biir géej bu dee géej liñ ci am doy na sëkk bu dee taw liñ ci am doy na sëkk bu dee suuf liñ ci am doy na sëkk boo demee Sénégal rek la yàlla def réew moo xam ne lépp loo xam ne dafay dundal doomu aadama ci réew ma mu nekk yàlla def na ko ci réew mi bu yàggul rek dégg nañ ñu ne pétrole feeñ na ci réew mi te bu yàggul ñëpp xam nañ ne réew mi or mu ngi ci biir réew mi fer am na fi gaz am na fi phosphate am na fi zircon am na fi kon réew mi lan lañ manqué dañu manqué ay njiit yoo xam ne loolu nga xam ne tey moom la yàlla jël teg ko ci seen loxo ñu war ko teg ci yoon ba ndaw ñi mën ci dund dund gu sell dund ku baax toog ci seen réew ba reconnaître na yàlla deselu leen dara njiit yooyu tey ñoom ñoo jël alal jooju di ko def di ko jëfee nu mu leen neexee di ko doxalee ci façon doxalin boo xam ne askan bi kenn ci ñun mënu wax ne nii la demee wala nii la demee te pourtant de boo demee ci seeni téere ñoom li ñuy wax constitution dañu wax ne alali réew mi réew mee ko moom askan wee ko bokk waaye lan moo waral benn nit war a mën a am huit milliards ndaw ñi bëgg a xëy ndékki mu tëleen ba pare bu ñu wëlbatikoo ñu ne dañ koy jiiñ yàlla yàlla mu ne déedéet inna allaha laa yuxayir maa bi qawm xatta yuxayir maa bi anfusihim yàlla nee du ma wàcc mukk di leen defaral seen Sénégal bi yàlla nee du ma wàcc mukk di leen redresser seen seen Sénégal bi man li ma war mooy yëkkati alal ji def fi te def naa ko fi ba mot sëkk li ci des yéen la bu suuf si yàqoo yéen la bu ndaw ñi demee ba mënatu ñoo nekk ci kaw suuf bay daw yéen ñi ma jël alal ji teg ko ci seen loxo yéen la waaye moo tax yàlla ne sahral sahral fasaad sahral fasaad fil barri wal bahri bi maa kasabat ay dinaas lépp lu ma leen jox ngir yéen doomu aadama ngeen war koo dunde yemu leen ci war koo dunde waaye ngeen war a yëkkatiwaat alal jooju tasaare ko ci xeet wi nee na sahral fasaad yàq ngeen suuf yàq ngeen jéeri ji yàq ngeen géej gi lépp lu ma leen jox rek ci seen loxo yi ngeen ko yàqee yàlla manqué yàlla xañuñu dara dama wax ne yàlla xañuñu dara waaye waxtu wu ñu jëlee nag ba jël cër bi yàlla moom xañ ko ko moom borom bi subhaanahu wa taala jàpp ne ñun doomu aadama yi lépp ci suñu loxo la ne lépp lu ñu yàlla tegal muy ay atte ñu jël ko teg ko fële bu boobaa nag yàlla seetaan ak suñu bopp te waxoon naa ko ne wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka képp koo xamante ne nii li yalla wacce wax nga ne man kat yalla di suuf di doxé ni asaman di doxé doxalin bi yalla nga xamni yalla mom moko tek ci kaw jam ñi seppi nañ ci loxo yalla tek fele yalla neena bu boba ma setan len te buma len setané fever yi dana bari stress dana bari neena dana bari lo xamantene ni ay dee yu gaaw la yo xamantene ni kenn du xam fan la dee yu xolal fever bi genn bu yagul ci geejgi kenn xamul feberu lan la te pourtant yàlla waxoon nañu ko yàlla nee na bu ngeen demee ba géej gi ngeen foowee ko rek nee na waxuma sax li nekk ci biir ma jëlee ko fa waaye ma indil leen ci loo xamante du ngeen xam lan la te loolu feeñ na gis nañ ne léegi li gën a garaaw yi ay phénomènes yoo xam ne ñun xamuñu woon lan la tey mu ngi feeñ ci ñun lu ko waral mooy dañoo delloowul yàlla njukkal dañoo joxul yàlla cër dañoo dindi loxo yàlla ci doxalinu adduna wan yàlla ne ko yow daal ben mbir nga rek bu tege ne li ci des ñun la te pourtant nag yàlla boobu mooy buur bi ñu bind ñun ñëpp subhanahu wa taala jalla qudratuhu bu fi bu bokkul dara du dox subhanahu wa taala ndax moo bind su wa jaal lakumul arda firaasan wa samaa binaan wa anzala min alsamaai maan fa axraja bihi min alsamarati risqan lakum fala tajalu lillahi andadan wa antum taalamuun yàlla nee na ci suratu baqara Yalla neena man may ki bind aduna bi man may ki talal asaman, mako lal ñepp di xol ta du daanu mukk seeni mam fi lañ koy fek fi lañ koy bayyi seeni mamat fi lañ koy fek fi lañ koy bayyi man bur bu subhanahu wa taala jalla khudratuhu suuf si mana, ngeen ci dox du sama kattan bi xudratihi la ko defee yalla neena yamuma ci waye may wacce taw wa anzala minas asamaai ma'an ngir lan fa akhraja bihi minas asamaraat rizqan yalla neena ngir seen dundu mu ne lu tax falaa taj alu lillaahi andaadan lan moo tax man ngeen bëgg mu utal morom yéen doomu aadama lan moo tax ngeen bëgg mu utal ay ndend te wa antum taalamuun yéen a gën a xam ne asamaan si baa ko téye yéen a gën a xam ne suuf si sama kattan la tegoo yéen a gën a xam ne la lakum dund ki ngeen di dund ci sama loxo la nekk nekkul ci loxo benn sëriñ nekkul ci loxo benn yonent képp ku ngeen jël mbir yi jox ko teg ko ci loxoom nax ngeen ko te Sénégal nag damay wax ne coono du fi gaaw a jóg de coono du fi gaaw a jóg ndax yàlla mi nga xamante ni moom la ñu waroon delloo njukkal tey ñun ñëpp moom la ñu taxaw di ko weddi ut nañ yeneen yàlla yu dul yàlla jaam ñi ut nañ ku leen moom jamono ut nañ ku ko moom lépp lu yàlla moomoon nangu nañ ko ci loxoom jox ko doomu aadama yi te yàlla waxoon ne falaa taj alu lillaahi daadan bu leen ma utal ku ngeen may booleel ndax li ma li ma leen mënal kenn mënalu leen ko waa mbokk yi ma leen benn fépp dugub ana kan kan ci ñun moo ko mën a bind ndax benn yonent mën na bind benn fepp dugub ndax benn sëriñ mën na bind benn fepp dugub ñëpp xam nañ ne loolu yàlla rek moo ko man kenn mënu ko kudul moom kon yàlla nee na falaa taj'alu lillaahi andaadan te nag yàlla nee na dinaa jégale lépp lépp dinaa ko baale ba mu des ngeen may utal ay ndend ak ay morom inna allaha laa yaxfir an yushriku bihi wa yaxfir ma duna man liman yasha yàlla nee na du ma baal mukk ko xam nak moy utal morom wala nga moy utal ndend fii yeen nak moy utal ay morom di utal ay ndend seen jamono dina metti seen suuf dina metti te di ngeen gëna sonn kon liñu war kay moy jël yalla def ko muy kenn wahdahu la sharika lahu damay wax ne senegal bari na jafé jafé yu fi am suñu borom wax ko ci alquran neena darat dara teggu len ko lu ñaka jox cër bi ngeen ma ñaka jox cër yalla neena may dundal ut ngeen kenen kuy dundal kudul man may ray ut ngeen ñeneen ñuy rey kudul man waaye nee na bés dana ñëw boo xam ne jàlla xudratahu sama paat rek laa taxsuhu sinnatun wala nawmun loolu man rek maa ci wéet du ma nelaw du ma gëmmantu kooku yàlla rek moo ci wéet kudul yàlla koo mën a kennal kudul yàlla bés dana ñëw di na nelaw wala mu gëmmantu yàlla nee na qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalit walam yuulat man rek maa ko moom juruma kenn juruma ku ngeen mën a kennal ku dul man am na njaboot am na doom am na baay am na yaay man nag maa jurul kenn juruma man subhanahu wa taala jalla xudratuhu maa ki nga xamante ne nii lu ngeen ma mën a booleel ku ngeen mën a jël ne mooy kenn bés dana ñëw ngeen ne bàmmeelam a ngi nii ba mu des man jalla xudratuhu wallahi ku mu mën a doon ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nii di dem madinatul munawar di siyaare ji bàmmeelam waaye mbokk yi nañu delloo si xel yi ñu jox yàlla cëram te xam ne ku dul yàlla mbindeef nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu xamee ne nit ñi dañu gaaw ci déraper dafa wax ne innama ana basharun mislukum yuwa ilayhi man nit rek laa mbindeef laa comme yéen moo tax bañ ko laajee ne ko yow la yàlla woo tur yi la yàlla woo ci alquran ban moo la gënal mu ne subhaanalladi bi asra subhaanalladi asra bi abdihi turu du boobu mu ma tuddee delloo ma ci sama ubudiya nee na tur boobu neex na ma lool ñu ne ko lu tax mu ne nangu gi ma nangoo nekk jaam xam ne kenn benn buur rek mooy am muy yàlla subhaanahu wa taala xam ne moo yor dogali moo yor xéewal yi moo koy séddale moo koy jox ku ko neex subhaanahu wa kon nag yàlla moom buñ ko joxul cër duñu du ñu jóg mukk ci di am njiit yoo xamante ne ni dañuy foowe yàlla moom buñ ko joxul cër jël ko teg ko muy kenn koo xam ne moom la ñu war a wéetal ci nguuram gi xam ne nguuram gi bokk ko kenn xam ne mooy mooy ki nga xamante ni ku dund mooma ku am wërsëg mooma mooy ki nga xam ne dogali ci loxoom la nekk tant que jëluñu loolu delloo ko yàlla duñu jóg mukk ci am ay njiit yoo xamante ne ni li ñuy lu coono métti méti day mel na yëguñu ko xoolal li xew mbokk yi ñaata nit ñooy dee ci géej gi ana sunuy njiit war nañu rus war nañu rus lii taxaw di wax naan yàlla yàlla yàlla déedéet yàlla neen du ma wàcc di leen soppil adduna de lépp lu ma war warloo ak yéen teg naa ko ci seen loxo xanaa kay seen cuune ak seen ñàkk courage ak seen ñàkk volonté ak di fooy seen askan kon yéen ñi ñu jiite ngir yàlla yërëm leen seen askan xam ne lii di dee ci géej gi de du phénomène de dañoo jaaxle dong moo leen jàpp wallahi du phénomène parce que phénomène moy lo xamanteni ni dañ na at sangam la commencé at sangam la yem waye ñun depuis 2006 2006 ba légui xalé yaangi dem te coono rek mo leen japp problème rek mo leen japp lutax parce que ñuy njit politique politique sen rek politique politicien te li gëna graw ci njit moy njit bo xamne lu mu wax tay bu suba mu ne waxuma woon loolu lële la wax di foy askanam suba ak ngon guddi ak beccëk lima taquluna ma la tafalun لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ño xamne buñu waxé tay bu suba ñu weddi ne waxuñu woon lii lee la ñu wax ay njit war nañu rus war nañu rus ñom dañu wara sëgg ngir askan bi di génn di dem ci gaal yi war nañu rus war nañu rus ngir buñu xëyé di gis njaboot yi di gëna a sonn sunu yaay yi di gëna a sonn boo demee ci hôpital yi muy gëna métti nga dem ci école yi muy gëna métti xolal li xew ci école bi xale yi nga xamante ñoo jàngoon daaw yëpp paaseel nañ leen ngir lan buñ demee CM2 ñu dàq leen ñoom ñëpp suñu askan di gën a torox ñoom seeni doom di jàngee ci école yi nga xam ne moo gën a kawe mbokk yi nañ delloo si sago yi njiit yi yéen laay waxal ëllëg kenn ku ci nekk di nga wéet sa bàmmeel ba mel na yow la yàlla bindoon nguur yàggul adduna yàggul delloo njukkan sa askan moo am solo ñi fi jëfoon lu baax démb ba tey ñu ngi koy waxtaane xam naa lépp du fi xaj xana kon ñu yamale fofu suñu kàddu insha allah rabbi ba benen yoon buñ delsé li nga xamanteni ni mom lañ tàmbale won ñu mataliko ci kàttanu yàlla ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant Moustapha suñu technicien bu baax bi sëñ fallu ñu ngi leen di ziar bu baax yalla na yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen sutura wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah